léegi dama boo seetloo ci bu tey bii dafa am benn xibaar bu doon circulé ci internet mu ni RFM moo ni commissaire central bu Dakar ak commissaire bi jiite DST bu ñoo tekki seen ndombal tànk euh, di xibaar boo xam ni RFM mosu koo wax euh, mosul wax lu ni mel mais ñi ko def li ñoo bind seen xibaar ba noppi daal def source RFM defoon nañ ko démb tamit ci bilan bi yokk bilan ñu ci faatu te fekk wérul mel ni source RFM fu nekk nit di fa wootee di leerlu ñu wax leen ni euh, ñu mosuñu wax loolu euh, loolu nag duñ bëgg attirer attention nit ñi rek ñu def attention ci xibaar yi circulé hmm. xëy li gën a wóor mooy nga dem ci ay page euh, réseaux sociaux yi nga xam ne RFM moo ko am nga gën a mën a leerlu foofu waaye boo gisee ku posté ne RFM rek ñu ngi naan ñëpp ci bi ak kilifay groupe bi itam euh, ñoom yëg nañ ko te euh, xëy na bu dakkul euh, mën nañ ci sàkk pexe loolu rek lañ bëggoon a leeral parce que ñoom bu defee source RFM xam nañ ni tax ñu def ko xam nañ ni. Mhm. ci rajo Sénégal yi ñun bokk nañ ci rajo yi gën a équilibré. Mhm. donc nga def sa désinformation ba pare bëgg ko crédibiliser tudd RFM kon xam nañ li ñuy def bu baax waaye ñu ngi sàkku ci mbokk auditeurs yeeg internet yeeg ñëpp ñuy sénégale demee fii ak fële ci bitim réew ñu tey ci xibaar yi nga xam ni moom mooy circulé léeg-léeg te ñu ciy tudd RFM te fekk RFM ko wax. manipulation yi moom lu mën a xew mi ngi wéy ay nit di ko def di joxe information yoo xam ne dara wéru ci euh, te itam loolu dafa xaw a bari lool lool ñu koy euh, def jékki-jékki daal di wax information boo xam ne daal ki nga wax doo xam sax moom lii fan la ko jëlee ak itam lan mooy source am comme ni ngeen ko gisee nii sax Babacar Fall di di da jox euh, source RFM di loo xam ne dara wéru ci te ci ngoon laa ko gisoon ma ko ñëkkee gis ka ma gis sax laaj naa ko na ko lii nga wax ndax RFM a ko wax mu ne ko gis ci benn groupe ma vérifié vérifié vérifié vérifié gisuma euh, ngeen ko kon Babacar Fall ci boom sax daal dina génn daal di koy euh, weddi kon manipulation dafay bàyyi lool lool lool jékki di bind ay information dara wéru ci tant nit ñi dafa mel ne ñoom daal dañuy bëgg dégg façon yu mel nii même si boo ko dee boo ko dee weddi sax dañ lay mere maanaam daal boo gisee information boo nga ñëw pour weddi ko ñoom dañu gis nañ lay mer da ci attaqué lu nekk ñu wax la ci waaye nag li am solo mooy ñun moom bu ñu gisee lu wut wala kuy def manipulation danañ danañ ko weddi danañ ko dénoncé ne kat loolu yi amul ndax joxe information dëgg la waaye nag wax lu wér ah, dafa am solo ah, comme ni ñu ko dee parfois ah, na doy na di joxe information yoo xam dara wéru ci dañoo attaqué lekk amul mu naan fausse information yoo xam si ay ay nit sax dañ lay woo di la ko laaj alors que yooyu yëpp dara amu ci dara amu ci ay nit ñoo jékki nekk jékki-jékki rek toog fi ñu toog créer seen information bopp véhiculé ko bu ko defee nag kenn ku ci nekk daal di ko gëm am na ñoo xam du ñu sax benn xalaatu ne lii est-ce que dëgg loolu dëgg waaye luy dëkk jël jël commencé consommer di tasaare yooyu itam lu lu waar la mais am na loo xam ne même yow buñ la waxee nga dégg ko nga am da toog xalaat nga étudier ba lii est-ce que c'est possible nga nga gëstu ndax bari information bu nga dee waxal nit benn moom mi ngi ci réseaux sociaux yi wala am na kër yoo xam ne duggoon loolu ci la am lu am la ko mën a gis afin nga dañuy gis loo xam en tout cas daal bu fekkante information ah, seen côté moom duñ xool ba xam dëgg la dañuy rek daal di ah, tasaare amaa nag bu fekkee nag information ah, boo ko jàllale sa parfois dañuy lay jël di la kenn ku nekk di wax mais kon il faut ñu arrêter li nga xam ne moo di manipulation yi xam ne ay ñëpp ñu koy def te xam ne loolu amul solo te itam bokkut ci loo xam ne si tamit jàpp naa ne lu ñu war a def la jamono ji fi réew xool luy fay ay wi xool luy tax jàmm dellu si moo gën di joxe information yoo xam day yëkkati xol yi yëkkati dënn yi te ala fee kenn du ci gañ